asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci tam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baal àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk. dellu si nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Deko di nuyu sëñ Ahmadou Badiou moom si Ahmadou faadal di ñaan yàlla defal ko jàmm ak tawféex mbokk tey taxaw seetlu bi. mi ngi jëm ci Guy Marius Sagna mi ak tey mii mi Touré yaakaar naa dinañ ci wax ak Aïssata Tall sàll ak ci réew mi rek ngir gën a yaatal tey dañoo wax ne Guy Marius Sagna dañ koo arrêté ndax li tax ñu arrêté ko da doon def manifestation te Guy Marius Sagna ci li mu wax mu ne deful benn manifestation euh, président Tunis bi li mu wax ci nit ñu ñuul ñi mi wax joo xamante ni mboolem kuy nit ku ñuul ku dul nit ku ñuul sax wàcc na waxam jooju ndax wax la joo xamante ni jëkkul jaaduwul rafetul moo jëmale ko ci nit ñi ñuul ñi loola yóbbee nit ñu ñuul ñi nga xam ne ñoo nekk Niger ñoo nekk Tunisie ña ngay dund ay fitna yoo xamante ni jéggi dayo la ba ci ku ci mel ni waa Mali ña ngay jëli seeni doomi réew ñu mel ni waa Guinée ña ngay jëli seen doomi réew Sénégal gi nga xam ne ñoom eh, la seeni doomi réew eh, nekk fa gisuñu benn acte boo xam ne def nañ ko lu dul euh, ndaw si nga xam ne mooy ay Aïssatou Aïssatou Tall sàll nga xam ne moom lañ dénk lépp lu aju ci bitim réew amul benn déplacement bu mu jëm lu dul taxaw ci tele yi di wane ne mu ngi def benn ex benn euh, benn benn manifestation bu wala benn bruit te li ko ñor dëgg-dëgg di itteel ko mooy troisième mandat bu mag Macky Sall def ak nu mu mën a nekk ci wetam. loolu tax mu dajale padoor ay mbooloo mu bari fu nekk ma nga fay jëm ngir di wane ne du troisième mandat sax waaye kii la deuxième mandat la euh, loolu jàpp naa ne ak ñu bari am ñeewante euh, te lii Mimi Touré wax na ko Mimi Touré nee na li nu def ambassade bi leen war na dem bind ko leetar wala ñu dem woo ko mu ñëw ñu wax ko ne ko lii sa président bii def metti na mboolem waa Sénégal étudiants fa nekk mënatunoo jàng ña fa nekk di ay nit ñu ñuul mënunoo génn ñëpp daw di protester seeni doomi réew gisuñu Aïssata Tall Sall gisuñu ambassade ba nekk foofu génn def benn manifestation wala mu wane dara te waxoon naa ko ca jataay bi passé mbooleem président Macky Sall ñi koy yàqal bokk na ci ministre bii di euh, kii nu mu tudd Aïssata Sall ndax li li koy porteloo ak li mu koy defloo daf koo deful ndax euh, ak ambassade yi nga xam ne moom lañ teewal ñu teewal foofa Sénégal immigré ya nga xam ne ñoo nekk ci réew yi mboolem fu réew mën a nekk amunu benn jàppale buñ la jàppale wala taxawun la buñ la taxawu boo amee problème problème bu métti lay doon loola nag bu nu dikkee mi Touré mii dikk wax na ko nee na danoo waroon a bind wala ñu woolu ambassade bi nekk fii wax ko def déclaration tey nag Guy Marius dikk moom métti lu loolu en tant que député des peuples dem na day jox ambassade ba la nga xam ne moo di ab leetar wan ko ne ko lii ngay def dañ koo ñaawlu lii sa président bi wax ñaawlu nan ko mettil lu nan ko ñu téye ko ca waaye léegi nag wax dëgg yàlla député bu fekkee amalu askan wi li mu war a wax moom mu am acce bi man koo wax man koo jooytu mën na koo doxal te ku ne xam na ne Guy Marius Sagna buñ ko doon tëj junniy bi mu ñu mu damm ñu tëjaat ko yeneen junniy caabi mu damm du tee mu wax lim gëm-gëmam du tee mu doxal askan wi ku nekk xam na ne bi mu nekk gu sax Euh, askan wi la fa nekkaloon moo tax askan wi mobilisé ne kii daal faw ñu yóbbu ko mu nekk assemblée nekkal nu fa depuis mu fa nekkee ba léegi xam ngeen ne assemblée sensé na bu baax Sénégal it lu ci bari yàgg na ko te du intérêt boppam la kooku nag buñ ko jàppee wax dëgg yàlla day metti lool ci askan wi ndax ku daan waxal askan wi di xoolal askan wi di leen doxal doon seeni tànk doon seeni loxo doon seeni bët buñ ko téyee dina metti beneen bi ci desaat euh, mooy Euh, loolu laa bëggoon beneen bi ci desaat mooy lu mel nii mi danoo wax ne waaye yeewi askan wi ak wàllu senegal ak ñëpp danoo bëgg benn coalition bu nu bëgg a def boo xamante ni yaakaar naa noonu la euh, PDS mii daf ci bokk ak ñeneen ñoom ñu gàntal ñu ne Mimi Touré da ciy bokk ñu gàntal ne Mimi Touré du ci bokk ndax Mimi ture moo tëjoon Karim Wade moo defoon li Karim Wade waaye ñoom ñoom nag danoo defee ne Sénégal wala boog sax lii naa leen ko mobiliser ñoom ñu danoo defe ne politiciens yi danoo defe ne ñoom moom Sénégal ak Sénégal léegi dañ koy jël di ko fayantoo ak di ko fayantoo di ko kiyan sa intérêt doom ñaata nit doom la leen tëj ci kaso bi ba Mimi Touré yoree loolu ñaata doomi sénégalais leen tëj ñaata mennam Karim wàdd dong tax ñu ne kii bëgg xeexal réew mi nekk ci intérêt réew mi ñu ne ruuf yéen bërki dem boo njaay du yéen a fi doon xeex Euh, kii nu mu tuddati Macky Sall mi ba tey yàlla def ko mu doon président li ngeen koy xeex li muy metti metti am na ñu ko doon xeex nekk ci seen biir Ahmadou Sall lu mu waxut président Macky Sall tey daanaka moo xaw a nekk porte parole am tey moo nekk interprète am di ko waxal ba ne xaaw te bu njëkk da ko doon xeex ana Souleymane Ndéné ana ñeneen ñi dem ci kii ana nu mu tuddati ñu bari ñoo xam ne ñu ngi jóge foofu dem fële yéen dafa mel ni booba ba léegi ngeen faloo ba léegi ànd ak kii ñi. falu kenn déggu leen ngeen wax dara ci lu jëm ci état bi li muy doxaleek ni muy def opposant yeeg li muy def barki dem boo njaay Ousmane Sonko tëjunu benn parasi bi oto dégg nañ benn koo xamante nii wax na ci wax jooju te Mimi Touré mi génn na lu métti métti génn na ne li def Ousmane Sonko euh, d'accord ci d'accord ci waa léegi moom lam doon def kan moo ko doon def loo Mimi Touré du woon a ministre du woon dara ministre du woon ab ab ministre la woon ñu jox ko fonction bi di ko ci digal xëyloo di ko ci gontloo di ko ca téyeloo loxoom ban ko ci xëyloo da ca daan xëy bin ko ci téyeloo loxoom dafa daa téye loxo kooku ko ngeen war a dem waxal mais kooku yéen dafa mel ni yéen kenn xamut ci état bi ngeen bokk wala ci opposition bi ngeen bokk ndax parce que mësunoo dégg ngeen wax dara te gis ngeen les député yi sénégalais yi fexe ba fal leen député def leen ay député yéen a nga ne dem assemblée fexe ba euh, euh, euh, APR am fa majorité te loolu dara waralu ko lu du seen ñàkk ki wax dëgg yàlla moomu leen nit ñi nag Mimi Touré li li ngeen doon ci réew mi la doon am na droit ku ko neex mu àndal bu demee ba gisatul la mu fa doon wut mu am droit génn mais bu dikkee ne fay dikk di ngir liggéeyal Sénégal ngir génnaat ndax itam nit ki loolu kay nit ku nekk yàgg na koo def xaritoog nit ba ci yàgg nga mujj wëlbati ko du ko tey ndax da ngeen a bokkatul ay vision troisième mandat du fi am loolu ci lay xeex ba génn ci mandat bi ba génn ci état ba. kooku koy wax di yàlla bu wëlbati ko àndaat ak ñeneen na da koy xeex ngeen ne du du bokk ndax moo tëj li woon Karim Wade yéen ñi tëj li woon Karim koy wax leen nu Karim lu mu defoon wala wax leen nu ne loolu daa war a tax rek ñu ne du àndateeg moom Karim bi ñu koy tëj fii daanaka Sénégal bu mu neexul woon amul jamono yooyu sénégalais yi ñoo ñoo demandé woon loolu sax sénégalais yi ñoo demandé woon na Karim mii nekkoon yore woon ay ministres yi nangam nan ko laaj alal ji fan la ko doon dugal ak sunu ministre bi nan la ko yore woon. loolu ginnaaw yàlla sénégalais yi dañ ci d'accord ñu ngi ciy wax Macky Sall sax di ko wax yaa tëjoon Karima waaye loolu sénégalais yi yëpp a ci d'accordoon daanaka ñëpp a ci d'accord lu dut waa APR waa waa parti Ablaye Wade lu dut Ablaye Wade ak parti boobu daanaka ñëpp a ci xawoon na d'accord Mbacke wu Ndiaye Mbacke sëñ Mbacke Ndiaye waxul ne fii bu Macky Sall jëlee réew mi ñun ñëpp ci kaso bi la ñuy dee ndax parce lu ko waral ñoom tooñun woon daawuñu wax ma Macky Sall dara daawuñu ko def léegi mooy lan kon am na lu ñu def loo xamante ni leer na ne tooñ nan Sénégalais yi loolu nag bu Mimi Touré wëlbatikoo woon ne combat bi ngeen bëgg ne du ngeen ko ci génne te ëpp leen Ousmane Sonko bi muy ñëw fii di ne dafay sélectionné ak yéen pour fii ci Touba loolu ak baax la ak échec sax laa ko tuddee benn bi baax laa ko mën a tudde wala échec mais fii Ousmane Sonko député bu ngeen fi am sant leen ko Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dong moo fi indi woon listam dina gañe Touba loolu moom lu wér la te leer ñun xam na waaw Karim mi nga xam ne ma nga nekk ci àll ba sëñ bi kenn xamul yenn saa yi ñu ne seen groupe WhatsApp yi dugg na ci sa def na benn audio wala yenn saa yi ñu ne bind na benn message nangam gisuñu ko dégguñu ko ngeen taxawal di ko kaasal koo xamante nii léppam ci réew mi la dafa bàyyi am njàngam bàyyi ay ay baam ci Amérique ak fa doon jàng lépp ñëw loolu lépp ngir soutenir am réewam Karim a ngi nii génn moom dem nekk ci réew ya boobu ba léegi kenn gisu ko ay ojo rek ngeen ni wax bu teyee ngeen ni suba bu subaa ngeen ni fii Babacar kii mu nekkoon ci parti Abdoulaye Wade Babacar la mas naa taxaw ne du yàgg mat balaa mat daanaka un mois wala dara Karim dina ñëw ñaata yoon la def déclaration ñaata yoon lañ ko def. kii nekk ci réew mi di jigéen de dem ñu nangu tomb ak tàmbang goo xamante ni askan wi la ci doon xeexal loola découragé loowu ko taxut mu ne summi naa sama mbubbam politique toogi naa sama kër wala jàpp naa sama njàmbur loola daf ko gën a di yokk force gën ko encouragé ba tax mu ne day jàkkaarloog askan wi ba troisième mandat du am ngeen ne ko yéen doo fi doo ko fi jooye waaye dimbali leen nit ñi yéen i tamit ah waaye li kan métti na lool mi ngi nit ñi nag yéen yéen a ñu liggéey loo leen liggéeyu leen ñu nangu ko jox ko Macky Sall Macky Sall li mu waxante woon ak ñun jot na moom la mu waxante woon loola moo tax muy kaas ku ko déggoon muy kaas leneen lu bokkut ak li mais troisième mandat ci la collé bu fekkoon ne poste bi dafa génn ne man poste bi ma diggoon mais naka jekk moom troisième mandat da koo waxoon ba muy nekk ci biir dafa waxoon ne troisième mandat du am leen nit ñi nag ngeen tamit bàyyi leen mii mi nag de naan lii est-ce que merloo sax ba ma dem eh, miite ci ci ci mii mi nag ah waaye Sénégal nag bëggut kuy xeex de bàyyi leen jàmbur.